li may wax nag mooy dañoo jëm ci contexte bu am solo Sénégal mësut a xam loolu régime boo xam ni ñii fi nekk di xëccoo tey dañu yaakaar ni lu ñu war a séddoo la ñoom ñoo war a gañe assemblée nationale ñun ñu yor réew mi su boobaa dama leen di wax lu leer pour mu dugg seen bopp yi bu ñu sàgganee ba Macky sàll ñàkk élection yi bu ñu écarté sax guerre civile am Sénégal ger civile nag laa wax ñun nag mën nañoo toog fii di naan suñu kafe di lekk suñuy affaire tëdd ci suñu weti soxna mais dañuy xëy bis rek ci li ma dégg mag ñi di ko wax muy sëriñ bi bindoon na ni ndakaaru danañ yendu ak bis buñ dul bokk ak kenn bu ñu sàgganee bis boobu mën nañoo dal 2024 soreetul nañ leen jël assemblée bi delloo ko président Macky Sall mu mën a àggali ay projet am bu ëllëgee ku bëgg yëkkati loxoom que le meilleur kooku bu ko neexee bu ñëwee dana fekk assemblée nationale am ñaari at mu ko neexee mu dissoudre assemblée bi organiser waat ay législative am mais diggante bi bu leen kenn détourné organisez-vous au soir des élections fii ci ngiraan nen day bu ñu fi defee liñ fi war a def laa wax de buñ ko fi defee jàppaleel ma jigéen ñi jàppale jeunes yi jàppale mag ñi danañ ko gañeel te ngiraaneen ku ne xam na ni romb na plus de onze mille habitants jàpp douze mille loolu nag doonatul ab quartier ab village la